en général moom politique moom comme lu ci suñ njiit bu mag bi waxoon Ablaye Wade rek def fi lu fi kenn defut nee na les promesses concernent à en croit kon donc wax dëgg la plupart ñi xamul politique lay bett mais vraiment ñi nga xam ne xam nañ carrément moom loolu du doon dara ci ñoom quoi parce que dañ lay promettre uniquement pour nga gëm leen mën a topp ci ñoom. dégg naa ñu ne les promesses n'engagent que ceux qui y mais loolu aussi je pense que ba tey euh, bu fekkente ne maanaam sa dessein mooy fexe ba say wax. bañ a méngoo ak say acte mën nga gëm loo nit ñi ne politique noonu la demee mais politique comme ni ma ko waxee tout à dafa doon loo xam ne si jàpp naa ne bala ngaa war a mën a woote jëm ci politique da ngaa war a doon koo xam ne si day da ngay am ay valeur morale jàpp naa ne la morale joue un rôle très important dans la politique dès l'instant que rek nit dem na ba nga xam ne si amatul morale boobu ci politique jàpp naa ne day doon euh, un illusionniste day doon koo xam ne si vraiment euh, jarul nga ciy dóor sa doom wala dara donc je pense que de ce point de vue euh, mënuñu accepter le fait que les promesses n'engagent que ceux qui y croient. digg gi moom yàgg na quoi digg gi yaa yàgg waaw ndax euh, ñun Mbàkke gi ñu dëkk rek li ñu dig dafa bari waaw parce que suñ ndox bi nga xam ne ndox bi wala kiiwul potable dafa am xorom kenn mënu ko consommer waaw ba ñu fi dalee dig daa yàgg ndax gars yi ñëw nañ fi maintes reprises nañu dinañ defal euh, forage yoo xam ne dangeen a consommer ndox mu nekk seen physionomie la quoi te Sénégal yëpp xam nañ ne carrément politiciens yi lépp lu leen ci gëm moom bu pour cent 10 leen ciy gëm mais 90 pour daanaka kenn gëmatu ci moom vraiment. waaw loolu yaakaar naa ne dafa doon ñaari affaire yoo xam ne si maanaam dañoo àndul parce que jàpp naa ne euh, politique li ko def ay valeur morale la. politique ñi ngi koy euh, jàppee aar boo xam ne si dafa tënku ci ni ñuy administrer ni ñuy gérer cité bi mënoo gérer nag benn cité te tegoo ko ci ay vertu tegoo ko ci ay qualité tegoo ko ci dëgg ndax jàpp nañ ne euh, boo demee ba nga xam ne si euh, sa yéene mooy fexe ba lu jaarul yoon nga jaarale ko yoon war nga fexe ba say kàddu di dëppoo ak say wax donc jàpp naa ne euh, doon loolu doon na vice na taar doon na défaut boo xam ne si ñu ngi koy constaté ci suñu politiciens yi. ñu koy regretter aussi vraiment parce que doon na loo xam ne bu ñu sañoon képp koo xam ne yëkkati nga kàddu jëmale ko ci askan. muy promesse électorale muy leneen lu mën a doon nga fexe ba euh, sa kàddu di rimer ay acte ak actes yi nga xam ne si moom ngay posé. te ñu ñëw ci gën a métti lu ñuy dund ci Sénégal waa ndax ñun dañuy consommer deux fois la même da nga jënd ndox boo xam ne da nga koy naan. ñu loo koy jaay bidon bi 100 francs léegi yow nga war cee consommer lu mat ay 4 bidon wala 3 bidon bu dee ci marché bi la bu dee ci kër gi da nga consommer lu mat 3 o minimum da nga def fin de mois bu nekk à 12000 francs léegi 2 mois yi day def 24000 te 24000 léegi boo ko amee boole ko ak sa facture au minimum dana la taxaw 50 et quelques mille chaque mois kon donc ñoo gën a métti la ñun lu ñuy consommer ci wàllu ndox ci àdduna bi waaw ñu bëgg nag ku ñu ci dimbale du président Sénégal doo la ñuy xaar mais association UNICEF yeeg yëpp lañu soxla ku ñu mën a dimbale nga dimbale ñu ñu mën a am ndox moo xam ne danañ ko mën a conserver dañ ko mën a dañ ko mën a utiliser def ci liñ ci bëgg def di ci naan waaw mais amuñu ko boobu ba léegi Mbàkke nag dépassé na foofu parce que Mbàkke boo koy dégg boo génnee boo ñëwee si dëkk bi ni nga koy gisee ak ni nga ko yaakaare melo amuñu voie publique amuñu dara espace public sax amu fi waaw ñu ngi ciy dox na ci côté yu nekk waaw politiciens yi nag dañuy nax ci côté bu ne waaw boo gisee Mbacke gën a dëgër ci wàllu politique lu mel noonu moo tax ndax dañoo nax naxatuñu waaw ku fi ñëw na ñu bëgg ku ñëw ku fi ñëw defal ñu loo xam ne ñoonu ñun Mbacke dañ ciy gis suñu bopp waaw ci wàllu développement parce ñun ñëpp ñooy liggéey suñu acteur suñu acteur développement lañ suñ société bopp ci la ñuy dox non da koy yàq moom parce que mag mu taxaw di la laaj réew wala mu lay laaj gox wala mu lay laaj lu mu a doon te du la wax dëgg nga gëm ko ba vooteel ko te lim lay wax yëpp gisoo ko vraiment loolu bu yàggee day yàq bi vraiment waaw loolu buñ ko mënoon a moom dana baax trop